وصلى الله على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ضوي رقوان وتمثيل بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب يسان تيسان الله سبحانه وتعالى دجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنت السيف الحديد كان له بكرمه الداخل الخديم من غير النيو دلين زياره di ziar mbooleem mbokki talibe yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di leen ziar ci fii ci alxadimiya tv di sant yàlla bu baax ci wér ak fekket jim ñu may ñu àndaat ak yéen seen jataay bii di al ilmiyatu irsaadiya min al taalim al xadimiya ci faral di waxtaan ak yéen yenn ci li nga xam ne aju na ci منذ الشيخ الحديد كان له ذكر من الداخل الخليج بنيان الشيخ سيدي المختار أن في الله يدل لول تبير يين جم أم كي لجي الشيخ الحديد بي يام نكو تسمع بام دخل لكوا نجرتم بنيان يالله مدرتو سنو كيف يدين يب يالله ساملين تارلين دي سنت سنو كاميرا مان بي نخم مي مملا نفير بول موي سيرن باكن دغري دي سنت بوكي طالب يي nga xamni ñoo ñi bayyi xel ajjuma ju jot ci waxtu wi di faral di seq ak yéen jataay bi nga xam ne ci la ñuy jéem a leerale lenn ci mbindum Seexul Xadim kaamil li karam fi baaxul Xadim ku ne xam na ni jamono yi yëpp ñi ngi ci téere bii di Mawahibul Quddus di ci di ko jéem a firi sunu kéemtalaay kàttan di ci jéem ngir mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo ñuy bàyyi xel di leen ci jéem a laabiire waaye it di ci wut ngërëmal Seexul Xadim kan loolu bi karam ngir baaxul Xadim ku ne xam na ni sunu bind bi passé ñu ngi tolloon ci di leeral lay yi ndax waxoon nga ni sunu borom subhanahu wa taala am na ñaar fukki melo ñaar fukki melo yooyu am nañu seeni safaan ñaar fukki melo yooyu nag lenn melo wu ci ne am na aw lay woo koy jox ci bu kenn ne lii amul melo yi saxul am na lo lay woo ko wara a layal kon day mel ni suñu bind bi passé ñu ngi nekkoon ci lay yi nga xam ni moom la ñuy layale ñaar fukki melo yooyu yi nga xam ni mooy yi nga xam ni dafa dagan wala yi nga xam dafa war ci àqi sunu borom subhanahu wa ñu leeraloon ci rek muy am ji nga xam ni moom la yàlla am waxoon nañ ni la ko layal mooy mbindeef yi mbindeef yi buñ amul woon suñu borom subhanahu wa taala kon mbindeef yi su su yàlla amul woon mbindeef yi duñu am kon bokk na ca lay layal ni suñu borom subhanahu wa taala lu am la rek mooy mbindeef yi nga xam ne dañoo am ndax ku ne xam ne ni mbindeef mënta sos boppam kon lan mooy tegtale ni suñu borom lu am la mooy mbindeef yi nga xam ne moom jëmmam ji moom suñu borom subhanahu wa taala moo leen sos ñu àggoon ci ni la mbindeef ak amam akuk ñàkk amam ñoo yem ak amam akuk ñàkk amam ñoo yem kon mbindeef mënta jikki ba càgg sos boppam faaw rek suñu borom subhanahu wa moo ko bind loolu rek moo mën a am waaye mbindeef mënta sos boppam ñu misaaloon ci boo jëloon kilo ak kilo teg ci balance ñoom ñaar ñuy ñaari kilo kese kese kese bu ca benn jikkee ba ci ak wat ma loola lu jomb la loolu moom mënta am ku ne xam na ni xel muñ ko wax na ni loolu moom jom na kilo ak kilo bu ñu tolloo jikk ba càgg benn kilo wat morom ma loolu lu jomb la faw da nga cay dolli dara baa nga teg ca sa dara baa nga bës ci sa loxo baa nga jot dolli ci aw xeet beneen kilo ba wat loolu ana noo koy déggee mooy mbindeef ak amam ak ñàkk am ñoo yemoo ci sun borom subhanahu wa taala waaye yàlla jikk ba càgg bi amal kon mbindeef sun borom subhanahu wa taala moo ko sàkk moo ko amal waaye mbindeef mënta yëkkataatu sos boppam layaloon nga it ni li tax mbindeef sosu mooy arab gi nga xam ni bi ko yàlla sàkkee ba noppi da koo taqale ak arab moo ko arab dañoo taqoo te arab ku mu taqoon rek xam nga ni yow mbindeef xam nga ni dañ laa sos waaye mënoo sos sa bopp ndax arab gi nga xam ni daa ñëw taqale sax moom it dañ koo sos lu mel ni liy wane ni mbindeef daa sosu mooy xiif mar sonn gëmmentu aw naqar bànneex gudd gàtt feebar wér njool gàtt am ñàkk xees ñuul loolu lu ci ne ku ne xam na ni loolu denn mënu cee beru doo taxaw fee di ko gis waaye faaw mbindeef day am mu ñëw taq ci mbindeef kon gis nga ni lan moo layel ni mbindeef daa sofu ba tey mooy li ko yàlla boole ak arat jikk ba càgg yëngu diko ko dal diko ko xif diko xiif mar diko ko am banex diko ko amu naqar diko ko febar diko wer diko am diko ko ñak yoyu taqab mindef mo mindeef lay ni dafa sos kon yoyu leralon nañ ko ci suñu bind bi passé ba leralon sax arat mom day melni ni lu sax la day tak ci te foo ko fekk am na ak tàmbali te arab du tuxu maanaam sama reggaay mën mën tëj maa regg yow nga regg yow mënoo am mënoo mënoo xiif man ma xiif moo ñu ko leerale woon tey moom arab it lu ñàkk ci jëmmi suñu borom jël subhanahu wa yàlla amul arab mi ndéef moo am arab waxoon nañ lay it fawu day feeñ wala mu maanaam fawu rek danga nga naan am na naqar wala nga ne am na bànneex waaye naqar ak bànneex mënuñoo daje ci doomu aadama bi ba tey arat nga gis ni doyluwul ci boppam faaw mbindeef day am arat soo ko ñëw tàq ci kawam kon yooyu leeraloon nañ ko leeraloon na it jiitu sunu borom bi subhanahu wa nga xamee ni moom moo jiitu te amul fu su fekkoon ni yàlla jiituwul woon mu aajowoo mbindeef te bu aajowoo mbindeef day daal di doon ko sosu te ku soo ko sosu gis nga dawru day dalay war wala te sarsul dawru mooy koo xam ni mafaul day doon ak faay kon yàlla bu fekkoon ni jiituwul woon day daal day daal di doon dawru dawru mooy da nga naan yàlla moo sos waaye ci kaw dañ koo sos ka ko sos am na ko ko sos wala nga ni yàlla bu jiituwul woon li ñuy wax tasalsul da koy daal mooy ci matière sàngam lañ defaree yàlla matière boobu nangam lañ ko defaraat matière boobu lañ ko defaraat nàngam lañ ko defaraat yooyu yëpp mu doon ay jikko yoo xam ne yu jomb la ci suñu borom subhanahu wa kon yooyu luñ la ci wax wax nañ la aw lay wu leer woo xam ni mooy moo lay jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala moom ku jiitu la ñu dugg ci kon ci buntu tey bi àggale mu ni summa baqaauhu topp desam nga taala kawe na sarmadan ba faw burhaanuhu aw layam inda sanusi fa sanusi al muqtada kaniira law jaaza doonte daganoon na ay yalxaquhu ba mu di ko yéeg addahra jamono jamono al adam ak ñàkk kama alaana niki mu ñuy gaare lantafaa kon dàqu warit ko alqidamu jiitam la nee na borom subhanahu wa desam bi lan nga ko war a layale ni fi yàllay dese yàlla moo fi des ba fi jóg mu ne yàlla bu fekkoon ni day jikk ba càgg ñàkk wala mu jeex wala mu jikk ba càgg amatul mu ni su boobaa jiitoom googu kon jiitoom googu ma koy waxal kon dootu am kon jiitoom googu ma koy waxal amul kon su fekkoon ni desug sunu borom bi subhaanahu wa taala li nga koy layele mooy bu ñu la woon yàlla kat day jikk ba càgg ñàkk baa day jikk ba càgg jeex baa dana am jenn jamono yàlla dootu am ñu la kon day loolu ñun mindee fi lay daal ñu ñooy jikk ba càgg dee dootuñu am jikk ba càgg adduna bi tukki kenn dootu am waaye sunu borom subhaanahu wa taala loola moom lu ndàqu la ci moom ndax moom rek moo fi wéy di fi sax di fi ne amul ak tàmbali amul fu mu yem bon amun la li kaw nii ngirug nekkam min sàmm ca foofee jaa isal wujudi aji dag aji daganuk mbindéef lay doon wa jaa isal wujudi te aji daganuk mbindéef xalqun mbindéef dong lay doon laa taxit bul jeng mu ne su boobaa subhanahu wa taala su fekkoon ni day jikk ba càgg amatul wala mu jikk ba càgg ñu ni yàlla dàq na nekkatu fi léegi su boobaa day nekk jaayis day nekk kon mbindéef mbindéef day jikk ba càgg di am wala mu jikk ba càgg di ñàkk te mbindéef moom gis nga dañ koo sos rek kon nag nee na la suñu borom subhanahu wa du am jenn jamono joo xam ne day jëkk ba càgg ñàkk baamu di fi jóg ndax kii jëkk ba càgg di ñàkk baamu di fi jóg mooy mindeef te mindeef moom day jëkk ba càgg dee jëkk ba càgg dootu fi am moo tax moo la comme suñu borom subhanahu wa taala desam ji la koy layal mooy su fekkoon ni am na jenn jamono ñu ni yàlla dana fi jóg su boobaa li ñuy gaar kon da koy gaar te su boobaa kon jiitoom gi day dàqu te su boobaa day nekk mindeef te mbindeef moom dafiy jóg kon na nga jàpp ni suñu borom subhanahu wa taala mu ni loolu moo layal desanti mu ni kayfa naka la loolay nekkee waxat sabaqa te mu jiitu woon aanifan léegi rek wujubu xidami dil karami gis nga waru jiitu aji tedd nga ji xaafiri zunubi kay aji jéggi lay bakkaar nee na sax naka la loolay amee naka nga naan sax sunu borom subhanahu wa taala dana am jenn jamono jikki ba càgg mu jóge fi baa mu jikki ba càgg baa mu jikki ba càgg ñàkk naka la loolay amee mu ne loolu kat mënta am ndax layaloon nga léegi waru jiitu sunu borom bi subhaanahu wa taala nee nga nekkuk yàlla gi moom lu war la waaye nekk mbindeef nag nga ni jaayis na mbindeef bu ko neexee yàlla bu neexee yàlla mu am bu ko neexee lu am te dafiy jóge day jëkk ba càgg jeex àdduna bi jeex lépp jóge fi kon sunu borom subhanahu wa taala mom rek moy dess kon motax mu la naka la lolay amé ta nga waxoon ni jiitub yalla gi lu war la manam nekku yalla gi jitom gi ak nguuram gi lepp da war dara du ci jaayis ndax sunu borom subhanahu wa taala moy jéggalekatu bàkkaar yi mu ne suma wujudu kawnihi euh top top nekku amam ga muhalifan di aji wute li xalqihi ñeel mbindeef yi burhaanahu aw layam kun na nga nekk aarifan di aji xam law annahu doonte moom maa sala yemoon na shay an dara abadan ba faw minha ci mbindeef yooyu la kaana mu nekk xaadisan di aji sosu mislan di am kem ba daa bokk feeñ na nee na sunu borom subhanahu wa taala wuute gi mu wuute ak mbindeef yi ana lan moo ko layam yàlla neewoon nga daa wuute ak mbindeef yi bokkut ak dara ci li mu sàkk du waxinam du jëfinam du aw nekkinam du aw meloom loola ku ne xam ne ni yàlla wuute na ci ak mbindeef yi lan moo layal ni yàlla ku wuute ak mbindeef yi la mu ne la su fekkoon ni yàlla yemoo na ak mbindeef yi su boobaa day doon ko sosu su boobaa day doon day am morom su boobaa day doon ko sosu su boobaa day day doon am morom waaye kon ndokk ba nga xamee ni suñu borom subhanahu wa taala moom ku wuutee ak mbindeef yi la ci jëfin baa ci waxin na ko sëñ ci baa waxe woon amul dara lu sosu loo xam ni yàlla nuroo na ak yow te yàlla ku doylu ci boppam la kon moo tax mu ni la nekkuk yàlla gi nga xam ni dafa wuute ak mbindeef yi layam wi kat nee na la ko layal du dara lu dul rek su fekkoon ni yàlla daa yem ak mbindeef yi day doon ku sosu te bu boobaa bu sosoo day doon day am kem maanaam day am moroom من داي مروم تيالا امول مروم سبحانه وتعالى كان رجلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد موتاخ موني وزات لي لما تا لاغا خامنا تا لاغا خامني مدا ويونا محال لو الله ولا لو جومبال لا من وجود قدمه تي ورو جيتوم مع البقاء عندك دسجا يا لبيب يو اجي خلو نينا كون سو فيكون ni da nga ni yalla da yam ak mindeef su boba day don mindeef am kem wala mu don wala mu am morom mu ni kat lu jomb la ci jëmmi su borom bi subhanahu wa taala lu jomb la ci jitom gi lu jomb la ci defam gi mu ni suma lahi top doylug yàlla gi jàlla magna wa ala kawe bi nafsi ci bopam burhaanahu aw layam xadil jalaa feeñ law annahu donte mom khat kana nekkon na محتاجا دي اجي اجي الى شيء جيم تي دار من المحل تي جيم جيم تي جيم رك جلا ماغنا وعلى تكره لكان منك جلا دي ماغ صفه دي او مرا ولا تكون ترنك ذات تشاف دي بروم ملو بالمعاني تي معاني تي جيكو ياغا وخون مي معاني تي ملو كان يت استبين ولا بمعنويه بتاغنتني معنويه وتاني تنياري لهو ديكو فليس ذو سأم تدين برم برم صفة دي أو نرى نانا سن برم سبحانه وتعالى وخون غني كو دوي لو تي بوفام سوخلا لول كين دارا من نا ديم وان نييب غيناو تا كين نو مانتا ديم وان كو غيناو نييب فكو ادي و موم سن برم سبحانه وتعالى لان مو لا يالني سن برم سبحانه وتعالى كو دوي لو تي بوفام نانا سو فيكون ني دا دوي لول تي mu ni su boobaa kon day aajowoo jëm ci jëm kon day aajowoo arab day aajowoo mahall day day aajowoo ci day aajowoo jëm ci jëmm kon su boobaa suñu borom day nekk arab day doon koo xam ne balaa def dara faaw taq ci jëmm te su boobaa nee na day nekk aw melo rek kon kon su boobaa jëmm yàlla ji aw melo rek lay doon day nekk benn melo rek koo xam ne day day nekk dana tekk benn place te su boobaa jikkooy maana melo yi melo maana bi ya nga ko waxoon kon su boobaa dootu ko amee melo maana maa maanawiya ya nga waxoon maani yi dootu ko amee maanawi yi dootu ko amee te su boobaa nee yàlla day nekk melo te yàlla du aw melo waaye mooy borom melo yi kon loolu ñu bàyyi ko kon nee su fekkoon ni su borom dafa doon koo xam ni daa nekk arab di aajowoo jëmm su boobaa day nekk rek kon su boobaa maanawi ya nga waxoon te maanawi nee nga woon nga ilmu ak kalaam ak xay ak samu ak basar ak xudratu ak iraada muy juróom-ñaar yoyu kon su fekke ni yàlla sunu borom subhanahu wa taala day wo genn jëm su boobaa melokaan yoyu kon day nàq waye kon sunu borom subhanahu wa taala wo kenn batay ma'nawi yi batay tey su boobaa day dàq ci mom motax tax sunu borom subhanahu wa taala mu ni la mom do aw melo waye mom moy berom melokaan yi moo tax mu delloo wax ba tey ni wa annahu ta moom law kaana donte nekkoon na muxtaajan di aji aajowoo ilaa muxassisin jëm ci muxassis la kaana mu nekk xaadisan di aji sosu jalaa feeñ na mooy suñu borom subhanahu wa taala ba tey su fekkoon ni nee nga aajowowul boppam doyluwul ci boppam su boobaa day aajowoo ci ku ko amal faw mu dem ci koo xam ni moo ko amal comme mbindéef yàllaa ko sàkk moo ko amal doyloo wuñ suñu bopp heure bu ñu amee aajo baa yitte dañuy dellu ca kañu sàkk amal su borom subhanahu wa taala neewoon nga su fekkoon ni doyluwul ci boppam dana am jëmm joo xam ni kon danga naan jëmm jooju moo sàkk yàlla ba yàlla boo amee soxla day aajowoo jëm si ci moom kon su borom subhanahu wa nee na aajowul kon jëm ci benn mu xasis kenn ko koy sàkk wala kenn ku koy defal dara yàlla aajowul jëm ci yow waaye lépp rek moo aajowoo jëm ci jëm ni su borom bi subhanahu wa taala borom la kayfa naka la loolay nekke waxat sabata tamu saxoon burhanun aw lay ala xidami yi ci jiitoom ga baqaa yi ak desam ga fii maa ca la nga xam ni xalaa wéyoon na mooy kon naka la lii mu lay wax naka lay nekk sax te yow nga waxoon ni saxal ni lay wu leer ni yàlla jiitoom gi daa sax desam gi daal sax amul dara lu ci manqué amul dara loo xam ne lay aajowoo di ko ci doon kon sunu borom subhanahu wa nee na lii ngay wax lépp ni ah yàlla kat man naa aajowoo jëm ci mu xasis baa ma xal mu ni loolu kat moom mënta ne ndax la yoroon nga jiitub yàlla bi ak desam nga ca bind yi nga xam ni moo la yoon mu ni wujubu waxdaaniyati latifi waru wéetub aji ñeewante ji burhaanuhu aw layam almahki yi la ñu nettali ami sharif yi jële ko ca sérif ba mooy imam sanusi sëtu rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam law annahu donte nekkoon na donte moom nekkoon na لو أنه دون تمام لم يكن نكون واحدا دكان لازم قدور من سما جفافة كون كل واحد نكب لونه نكب لونه لونه عدما دي أنيك لعجي ينجر غلطن حين إذن فافة وجوبا أقوار من التمانع كترين تجح فكن نغنك أديبا دي أبيحم لأن سنبرم سبحانه وتعالى dangaa waxoon ni yàlla waxdaaniya la yàlla ku wéet la ci nguuram nga maanaam ku wéet la amul benn amul ñaar amul ñett amul ab nawle da nga ni woon yàlla kenn la te ku wéet la ci nguuram gi amul ku koy jàppale ci dara soxlaalul kenn dara kon yàlla ku wéet la lan moo layal ni yàlla ku wéet la mu ni su fekkoon ni dangaa jéem wax ni yàlla kat am na beneen yàlla bu am budul moom mu ni su boobaa lu ne su boobaa dara du am nee na su boobaa dara du am ndax nee na soo ni woon beneen yàlla am na bu dul yàlla su boobaa xëccoo day am ndax su boobaa ak lott day am ndax bu yàlla mii nii bu yàlla meenee day taw beneen yàlla mii du taw yàlla mee bu demee bay taw beneen yàlla mii daal di fàq taw su boobaa taw du am bu yàlla mii waxee ni dama bëgg damay bind mbindeef yi yàlla mee ni ko mbindeef du am su boobaa mbindeef du am kon su boobaa mon la bu fekkon ni ñaari yàlla amna rek su yàlla mi xëccio jëm fi yàlla mi xëccio jëm fi su boobaa dara du fa kon nak la ngay déggee ni kon suñu borom saara wala ku wét la ci nguuram gi moy li nga xani lim bëgg moy am nam ko bëggé nam ko dogale ak waxtu wa dara du ko rëccu du am lépp lo am moma lépp looy gis sunu borom la lépp lo am ak nam ko amé yalla ko sàkke non moko doxale non amul kenn ko xamni ni empêché nga ko ci dara amul kenn koo xam ne mën ngaa xëccoo moom dara kon nag yàlla sunu borom subhanahu wa ku wéet la ndax neewoon nga bu wéetul woon doon ñaar kon su boobaa dara du am adduna du am mbindeef am dara du am ndax bu yàlla mel nii day def lii maneen yàlla ma jëlee des ni ko lii mooy am su boobaa xëccoo am su boobaa dara du am moo tax kon loolu rek war na laa tegtal ni sunu borom subhanahu wa taala ku wéet la kon loolu war na laa jàngal ni sunu borom subhanahu wa taala moom ku wet la borom ne su matti saafuhu topp melokaanam ya bi ilmin ci xam wa xayaat ak dund wa qudratun ak kattan iraadatun ak nameel min di sifaati ci yi la mel burhaanuhu aw layam law intafa doonte dàqu na shay'un darra lamma ca la nga xam ni wujida fekkeef na ko shay'un darra lamma wujida deful fekk kon lamma wujida déeful fekk lama wujida déeful fekk shay'un dara min wara rabbi sama ci mi ngi fi borom asamaan nee na la sunu borom subhanahu wa taala su amul woon xam-xam amul ak dund amul kàttan amul ak nammeel nee na bu ko amul woon mi ngi fi du ñu am ndax ku ne xam ne ni jàngoon nga ni xudratu ak iraada day feeñ ci mindeef mindeef mi am xudratu ak iraada ci la ko yàlla amale mbindeef ma nga xam ne mënoon naa am te amul xudrat ak iraada ci la ko yàlla ñàkkale moo tax kon mu ni la ilmu muy dund ak xam-xam ak kattan akut na mel mu ni yii bu ko yàlla amul woon suñu borom subhanahu wa taala nee na su boobaa dara du am ci mbindeef yi dara du am ci mbindeef yi kon yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax xam ni suñu borom subhanahu wa taala lay yi nga xam ni ñaar fukki melo yooyu ñu waxoon noonu la ko Serigne Touba Seexul Xadim di ko limee par benn par benn par benn parce que wax na leen ne yàlla soo ni woon wéetul su boobaa mën naa doon ñaar su doonee ñaar xëccoo am dara dootu am neewoon nga yàlla boo amewul woon xam-xam ak dund ak kattan ak nameel su boobaa dara du am ci milieu fi neewoon nga yàlla bu doyluwul woon ci boppam su boobaa day aajowoo jëm ci génn jëm baa mu aajowoo jëm ci ku koy amal te su boobaa ya nga waxoon ni xudratu ak iraada ak ilmu ak xayaat ak sama ak basar su boobaa yàlla du am yooyu kon yooyu yëpp ñu xam ko neewoon nga it sunu borom subhanahu wa taala wuute gi mu wuuteeg mbindeef yi su yamoon ak mbindeef yi day doon ko sos te su boobaa day am am morom te loolu neewoon nga lu jomb la ci jëmmi sunu borom bi subhanahu wa taala kon day mel ni leçon bi dañ koo xaaj ñetti xaaj xaajub ñaareel bi foofu la yem incha allahu rabbi suñu baneeni jataay danañ nak euh beneen xaj bi nga xamni ni moo koy moo koy tëj su ko defé ñu ngi djéggulu ñëpp di ñaan ci sa borom mu defal ñu ak dégg ak ak top ak ak jariñu di sant bokk talibé yi nga xamni ñoo ñi bayyi xel fi ci al hadimiyya tv euh ci seen jotaay bi nga xamni mom lañ duppee al almiyatul irsadiyya min a taalim al hadimiyya di djéggulu ñëpp di ñaanal ñëpp di len ziar di ñaan ci sa borom mi dara tawul liggéey bi nga xamni mom moom la ñuy liggéeyal sayxul xadim yàlla na nu ko nangul lu ci manqué yàlla na nu ko mottalil ci ak matam yàlla na nu jéggal sunuy rëcc rëcc te defal nu sutura suñ ko jaamoo def ñu dëgg-dëgg ay taalibe dëppale ñoom ngërëmal sayful xadim lu ci jub mbaax ak sunu borom la lu ci dëgg gàtt xam-xam ak néew gëstu la ñu ngi leen di jox dig daje insha allahu àjjuma jii di ñëw ci waxtu wi fii ci alxadimiya tv wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu